waaw Lambalog nuyu naa la. waaw waaw gaynde namm naa la. maa ngi am jàmm. waaw soo gisee combat Bou Siteu ak Laurent Ndiago. non Bou Siteu Laurent Ndiago neex na de mais Bou Siteu Laurent Ndiago da koo xaw a sàcc doole mais Bou Siteu tey li mu war a def def na ko wax dëgg yàlla tey moom kontaan naa trop. parce booy la day doog ñëw si làmb lii moo koy mu ñëw. tey mobilisé na indi nay xeex na. lii la yàlla dogal mais Bou Siteu moom gàcce nga laa ko. est-ce que deful erreur bi Laurent amee trois avertissement. waaw daa waroon téye boppam daa waroon téye boppam mais lamb ji lamb amul téye sa bopp parce yow li nga mën a calculer moo yow mi si moom mënu koo calculer. daa dem ba bëre si am na fu lay àgg dee rek bi mu waree téye boppam booy bi da téye la téye te rëccatul li li bi mooy bi mu téye ngemb dafa waroon dem bëre mais wutu téye ngemb di taxaw benn loxo loolu du yoon mais Bou Siteu moom seetaan na sama xol. carrière Laurent fan nga ko gis ci làmb. non Laurent Ndiago nag tey indiwul indiwul indiwul koof indi na volume indi na lépp mais indiwul koof bi làmb ji tàkkee moo waroon a jeexal combat bi me daa son boobu la libi boobu la Bou am koñ mooy bi mu ko dàq jee dafa am koñ mu génn saako yi bu ñëwaatee bu mu nangu mu laal ko na koy méb rek bu yàggee day génn. deux avertissement bu amaatee deux koy gagné. bu Laurent fi mu toll nii Bou Siteu fan la jëm ci làmb. Bou Siteu. daanu bi daanu instant yi fan la ko mën a yóbbu. non Bou Siteu mën naa amaat combat parce que booy la ñaari combat la amagum ak fils de Lang Sané combat la. Liss Ndiago. waaw mais Roland mi ak fils de Lang Sané ah, dañ ko ak booy fils de Cissé Lan Sané day dugal lii lépp booy Roland day dugal lool boo ko tëggee moo dàq mbër yu mag yi est-ce que ma loolu ku ko tëgg da nga si gis comme bii ma waxoon ne pour Siteu ak Roland Ndiago man maa waxoon ne combat la mais tey Fils de ak booy bii boo ko tëggee doo ko réccu parce que booyu ndaw yi xoolal stade bi nu mu feesee moo gën nga tëgg mag yu mbër yu mag te du fees. am